sant yàlla rek julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne yàlla na yàlla dafay taarif baay xaqiqatan xalif bi ci boppam sax loo ko mënta ñaanal bokk ne yàlla na ngi nekk xalifu bàyyi rek du du ko mën fàtte ñun tam ñu ngi yàlla defal ñu ko loolu xaaj na suñu xarit la suñu dëkkaale la comme ni ko bàyyi waxee wax ne Mauritanie ak Sénégal benn réew ba Matam Moulaan jaar leen ci àll boobu indi leen fii ay ñoom lu ñu defal bàyyi rek bàyyi jaral lu ëpp loolu te bàyyi tam jaral lu ëpp loolu li may bëgg wax rek mooy yàlla na xalif bi yàgg fii ñu yàgg ak moom di ko jàppale ci li bàyyi bëgg ndax moom bàyyi rek moo léppam bàyyi def mooy léppam mooy waajuram mooy xaritam mooy xaritam mooy sëriñam mooy léppam ñu di ñaanal Sénégal yëpp jàmm kër diini yëpp mais di ñaanal sëriñ bi jàmm yàlla yàlla guddal fanam jox nag nit nañu góorgóorlu topp ci li ñu war a def jàppale sëriñ bi ci gàmm gi ñu ñëpp noo ngi taxaw nekk tey ay jaamam nañ ci gànnaaw maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi Vous eh, savez, nous, ces eh, chameaux que vous voyez devant vous, c'est des chameaux qui viennent de la Mauritanie, et de l'est de la Mauritanie, presque. 2000 km de Nouakchott, de la capitale. Et raison pour laquelle c'est pour la naissance du prophète. On, a, l'habitude de faire chaque fois qu'il y a des Et que pourquoi on, amène des chameaux Parce que leur valeur est plus importante, que les, moutons et les vaches. Raison pour laquelle on achète. c'est une initiation qu'on a commencée depuis depuis quelques années. On va essayer, euh, comme me dit, vient de me dire El Hajj al-Mishri, qui est le, le, le Khalif de Cheikh Ibrahim en Mauritanie, il vient de me dire que l'effectif sera augmenté toujours, Inch'Allah, chaque année. Raison pour laquelle ces chameaux sont venus et ils viendront chaque année. Mais chaque fois, il y a maintenant ici devant vous 32 chameaux, mais l'année prochaine, ce sera plus, plus de 60. Aynısı da Türk Safa Automatique, il y Et nous voulons aussi que le Sénégal sache la valeur du chameau, parce que le chameau n'existe pas en Sénégal, il n'est pas habitué au Sénégal. C'est les vache c'est les vaches ou les moutons. Mais on a essayé d'introduire cette culture qu'il y a en au Sénégal, parce que nous sommes des talibés de Magnas, on voit, chaque gamme pour ça, et pour essayer de commémorer la naissance du prophète. je vous remercie. الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله Sous l'égide de Cheikh Mohamed El Mahi Niass, Khalif général de la Faïda Tijaniyya, qu'Allah l'assiste dans sa mission, en collaboration avec les éditions Sirius, Docteur Mbaye Diouf vous présente la sortie officielle de l'essai Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniyya.